إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk jullit yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom ñu ngi seede ne yàlla dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu te yàlla bindu la indi la ci kaw suuf lu dul ngir nga jaamu ko ñu ngi seede na yonent yàlla bi moom la yàlla yónni woon ngir mu jàngal ñu nu ñu koy jaamu yonent boobu leeral diina ji gën jaa màggi leeral dund ko gën jaa rafeti dundin mu bokk ci leeral googe mu xamal ñu ne suñu diina jii dey bokk na ci jëf ba gën a rëy bu ñuy jëf muy la nga xam ne muy génne zakat zakat boobu nga xam ni suñu borom yàlla sant na ab yonentam ne ko jëlal ci seen alal yi li nga xam ni ab sarax lay doon laabal leen ci ful leen ci ca nga ñaanal leen ñaan yi ngay ñaan dana nekk dal ñeel leen mbokku zakat ponk la ci ponku lislaam islaam daa tege ci juróomi ponk ba ca jiitu mooy seede laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñaareel ba mooy taxawal julli ñetteel ba mooy génne zakat koor dooga ñëw ak aj makka mbokk koor li muy siiw siiw zakat moo ko gën a màgg ci lislaam aj makka gi ñu génne zakat moo ko gën a màgg ci lislaam suñu borom yàlla subhanahu wa taala def ko loo xam ni dana lënkale diggante ña yàlla wërsëgal ak ña ñàkk mu nekk loo xam ni dana leen def ay doomi ndey waaye it doon loo xam ni dana ca soqalee ñi nga xam ne ni amul muy ponk boo xamee ni nii waa ji koy def lu jàpp ne man kat damay coobarewu rek wala man kat damay def lu baax rek ba demoon ci diine yu jëkk ya amul lii di génn zakat du ponk waaye dañuy ñaax seen waa diine ñu sàkku tuyaaba ngir sarxe amma islaam nag gisewul noonu islaam daa gise ni zakat moom benn mbir la boo xam ne àq la bu ñuy génne sa alal et que li la yàlla wërsëgal ca tool ba nga bay danga war a natt lan mooy zakat ba nga génne ko yéene ko muy zakat nga joxe ko loolee la borom bi subhanahu wa taala gërëm alal ji ngay faggu it ci xaalis bi naka noonu looloo tax waa ji nga xam ne masalan sénégalais yi da ngay gis koo xam ne ci turu diine dañuy jël alal yu baree bari di joxe na doon ca jàkk yàlla na doon ca daara yàlla wala sax ci ay ndaje yoo xam ne bidaa kese la waaye mbokk loolu lépp teggiwul ci yow zakat mi ngi mel ne rek tey jii waa ji nga xam ne bu fajar jotee ma ngay taxaw di naafila di naafila ba ba jant bi di sow julli na trois cent rakka waaye julliwul tisbaar julliwul takkusaan mbokk loolu égal zéro ci yàlla loolu kon fokk jullit bi war a xam loolu képp koo xamee ni nii jàpp nga ne zakat boobee day waru la bokkul ci sa diine mbokk loolu ak kéeféer la suñu borom moo na yonent yàlla bi bu dee ne ñi ngay woo nangu nañoo tuub muy benn ngoog ñu taxawal julli joxe azaka su boobaa fa ixwaanukum fi diin seeni doomi ndey lañu ci diine ji looloo tax mbokk jullit diine ji ñuy dund képp koo xam ne dañ laa gis nga ne xam ne yow doo julli nga la way xamal kooku bokkul ci lislaam du génn zakat kooku bokkagul ci lislaam amma nag fa in taabu wa aqaamu salaata wa aatawu zakata fa ixwaanukum fi diin loolu la ab julit war a xam mbokk julit mbokk zakat mi ngi nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala mii borom alal yi alal yi ñu yor mbokk gëmal ni yàlla dañu ko dénk suñu borom mu ne mimma jaalakum mustaxlafiina fiihi alal dafee nekkoon avant ngi juddu yàlla indi la am lum la ca dénk balaa yàgg nga dem mu dénk ñeneen yow moomu yàlla dénk nag la borom bi subhanahu wa taala ne jëlal ci li ma la dénk joxal ma sama jaam yee nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw looloo tax lan mooy zakat rôlam bi gën a rëy mooy indi équilibre ci société bi ba nga xamee ne li doomu aadama di soxlawoo ca mooy mën a lekk mën a naan mën a am fu mu dëkk bu feebaree mën a faju la nga xamee ni dañoo nekk ci société bi ca amuñu kàttan ci loolu suñu borom faratal ci borom alal yi ne jël leen cër boo xam ne bu ngeen leen ko joxee ñoom daañu mën a am dund gu dal dund gu teey comme yéen borom alal yi ni nga xam ne nen noonu ngeen koy dundee suñu borom it def ko loo xamee ne nii da caa bëgg sax ñooñee ñuy dimbali mën a bokk te ñuy dimbali waate ëllëg looloo tax bokk na la gën a rëy mooy financé ndaw loo xamee ne nii mi ngi kattanam ñu financé ko loo xam ne ci matériel la wala lu mu mën a doon. lu mu mën a déparé ba ëllëg ki si biir waxuma day yor boppam waaye day dimbali keneen e yéen mbokk jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi yónni Muaz ibnu Jabal ca Yaman ne ko ay Muaz yaa ngi dem di dikkal ay ahlul kitaab ay chrétien ak juif soo demee na nga gën a bàyyi xel ci woo leen ci tawxiid ñu gëm laa ilaha illallah gëm na man yonent yàlla la mbokk loolu mooy ponk ponk yi leneen luy ñëw ci kaw loolu lay tege loolu bu baaxul dara baaxatul bu dee ne dem nga ba yëg ne ñoom kat nangu nañu loolu xamal leen ne yàlla faratal na ci ñoom juróomi waxtu yoo xam ne dañ ko war a julli ci bis bu nekk soo demee ba yëg ne nangul nañ la loolu xamal leen ne yàlla faratal na ci ña nga xam ne dañoo am alal yàlla faratal na ci ñoom ab cir boo xam ne nañ koy jël di ko delloo ña ñàkk loolee mbokk moom la ñuy tuddee ñi am nisaab mooy waa ji nga xam ni bu dee ne la gën a néew ci takk yi nga xam ne takk nañ ko suñu jamonoy tey ji yàlla wërsëgaloon na la trois cent mille yoo xam ne yow kat denc nga ko yaa ngi faj say soxla ren ba déwén teewul am nga trois cent mille yoo denc suñu borom ne la trois cent mille yooyu day jël ca un quarantième mooy diviser ko par quarante loolee nga jël ko génne ko la nga xam ne mu nekk zakat boobee mbokk loolee da ngay gis ne représenté wul dara dara à peine ay sept mille cinq cent yow mi dencoon un million suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne la jël ci vingt cinq mille nga génne ko loolee mu nekk la nga xam ne ni moom mooy zakat boobee lii mbokk da ngay gis lu yàlla subhanahu wa taala yombal la ku nekk ci ñun yow góor wala nga nekk jigéen nga war a bàyyi xel ci loolu bu doo demee ca borom tool ya am nañu seeni atte ca mooy la nga bay lu nekk fukkeel ba nga war a jël diviser tool ba par fukk benn ba nga jox ko fuqara ya loolee borom jur yi am nañu seeni atte ak yeneen ak yeneen ak yeneen ala kulli xaal képp koo xam ne yàlla boole na la ci ñii mën a faj seen soxla ren ba déwén teewul ñu am lu ñu mën a denc ren ba déwén loolee ñu denc nañ ko xaaj bu dee xaalisa yàlla waxul ñaar waxul juróom waxul fukk ñeen fukki xaaj la wax ñeen fukk xaaj ko ñeen fukki xaaj joxe la nga xam ne nii mooy benn ba lii di fuqara uya mbokk suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla day moo ma digal ma takk jihaad xeex ak nit ñi ba baa ñuy nangu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah gannaaw ba ñu nangoo taxawal julli nangoo génn zakat mu ne bu dee def nañu lii day amatuma droit di xeex ak ñoom seen mbir dañ ko bàyyeeg yàlla looloo tax bu doon lii di loi islam am na fi islam boobee dana organiser zakat waaye képp ci jullit ñi ku ñu yëg ne yow kat yaa ngeeg alal ci doo génn zakat daañu la woo teg ci yow ab daan bu jaree ñu xeex ak yow sax daañu xeex ak yow ca loolu mooy xeex bi abubakarin saddiq jëkk a xeex gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ko jëmale ca ña nga xam ne dañoo bañoon ne dootuñu génn zakat mu ne wallahi waxuma ñàkk génn zakat waaye benn bëy ba gën a ndaw ci liñ daan jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko indiwul dana xeex ak ñoom ci loolu loolu mbokk kon di mbir moo xam ne ku ne war na cee bàyyi xel ñàkk génn zakat musiba àdduna la ak musiba àllaaxira la suñu borom yàlla nee na ñooñu nga xam ne am nañu alal te duñ ca génn zakat fa bashiruhum bi azabin alim bégal leen ci mbugal mu tar mu leen di xaar alal joojee yàlla dana ko soppi def ko ay feer yowmal qiyaama ñu tàngal ko ci sawara ba mu xonq curr ñu koy maase sa kanam di ko maase sa wet di ko maase sa gannaaw malaaka yi naan la mus mosal lii mooy alal ja nga dencoon bañ koo jox faqiir yi seen wàll mbokku zakat mooy lan mooy loo xam ne yàlla da ko boole ci lim la may muy àqu fuqaraa yi mu ne heure bu jotee jox leen ko loolee heure boobee bu jotee ca joxoo leen ko day dindi barke ba nekkoon ci alal ja nga xam ne ni yoroon nga ko loolu nga bàyyi ci xel bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yaay Aysa lim nettali nee na maa xaalatati sadaqatu maalan illa ahlakat amul kenn kuy jël alalu zakat bàyyi ko ci biir alalam lu dul loolee jural ko ci ay tolof-tolof waroon ngaa génne un million zakat soo moytul da nga génne vingt millions ci faju wala ay yeneeni catastrophe yoo xam ne day dal sa kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it dana wax ne amul benn dëkk boo xam ne daañu sàggee ne génne zakat lu dul yàlla subhanahu wa taala xañ leen ab taw bu dee dañuy tawlu it ba yu ma yaa tax waaye taw ba dootul doon loo xam ne nii luy am barke la waaye yow mi koy génne ngal la waaye yow mi koy génne ñu ngi lay bégal suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na wa ma anfaqtum min cheyin fa huwa yuxlifu wa huwa xayru raziqin loo génne ci sa alal yàlla dana lu ko fulal te moo gën ci ñuy wërsëgal looloo tax julit bi day gëm ca la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon ba waat ko mu ne maa ngi waat ni alal ja ngay jël di ca génne sarax wala zakat du ko wàññi mukk loolu mbokk jurit da nga ko war a gëm comme misaal bi ñu suñu borom jox gannaaw ba ñuy wax ba ñuy ubbil ayay zakat ci suratul baqara da ko ubbee ci ni ñi nga xam ne day ñooy génne zakat dañoo mel ne baykat bi dem jël aw jiwam ca tool ba di ko ji loolee da ngay gis ki xamul danaan kii moo mën a yàq nan lay jëlee gerte gi ak dugub ji di ko sànni fii waaye da ngay gis ne bu demee ba góob jot ka nga xam ne daa jiwoon cinq kilos ah ka nga dana ñee ka nga xam ne moom vingt kilos la jiwoon loolee kon muy wane ne loo génne ci alal joxe ko ca la gën a màgg li ngay génne mooy zakat boobee xamal ne suñu borom dana ko delloo si borom bi tudde na ko zakat mooy dana la ful yow yokk sa mbaax yokk say daraja ful sa alal waaye laabal la itamit laabal la ci ay bakkaar laabal la ci bépp jukko boo xam ne jukko bu bon la rawatina la nga xam ne mooy xiir ak réy réylu laabalit alal ji ci bépp tolof tolof boo xam ne nii da caa nekkoon wala loo xam ne da caa duggoon ci teyoo ko mbokk zakat mi ngi nii di dindi ñeetaatee ci diggante fuqara yi ak ñi nga xam ne dañoo am su ko defee ña nga xam ne dañoo nekk faqiir di leen ñaanal ñaan googu suñu borom sant yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum ñaanal leen ndax seen ñaan loolee dal la ñeen leen ba nga xamee ni nii dañ naan bu dara nekkul woon ci zakat ak sarax lu dul waajan ko jox ne la jazaka allahu xayra loolu rek doyoon na doomu aadama bi di góorgóorlu di ko jox ak xol bu sedd faqiir bi nga xam ne dangoo bégal xolam ci amul lenn lu gën a mën a kontaanloo borom bi subhanahu wa taala lu mel ni jullit bégal mbokk jullitam lu mel ni jullit xettali mbokk jullitam mu ñaanal la ak ñaan ñaan googu incha allah fokk yàlla dana ko nangu jazakallahu xayran jox nga ma un million jazakallahu xayran un milliard jazakallahu xayran lépp loo xamee ne nii defal nga ko jaam mu ne la jazakallahu xayran li des ca yàlla moo ëpp la nga xam ne wërsëgal na la ko moo ëpp la nga xam ne joxe nga ko mbokk génn zakat day indi jàmm ci yow indi jàmm ci sa famille indi jàmm ci sa liggéey bari na doomu aadama fitna dal ci liggéeyam dal ci këram mook njaboot gu jubóowuñu la ko waral mooy àq yi nga xam ne da koo war a joxe ca joxewu ko loolu ku ne ci ñun war a bàyyi war xel ci loolu mbokk la nga xam ne ni moom la suñu borom déggee mooy képp koo xam ne gëm nga say def lu baax danaa ko dundal dund gu teey ca it danaa ko fay la nga xam ne moo gën lam doon def waa ji nga xam ne ma nga nekkoon ci tiisam ak njaqareem nga bett ko am loo ko jox loolee nga ko jox xettili ko ngal la way bégal bégal ci ne suñu borom yàlla dana la bettee mbig gu ëpp gi nga ko bégal dana la xettili xettili gu ëpp ga nga xamee ni da nga koo bég da nga ko da nga koo am ca waajoojee mbokk la nga xamee ni ni moom mooy zakat suñu borom yàlla def na ko benn équilibre boo xamee ne xattaa tey yéefér yi gëmul yàlla waaye nekk des grands économistes bokk na lu ñuy wax mooy dara gënul alal yi borom alal yi ñu koy tasaare ci nit ñi ba mu bañ a doon loo xam ne ay alal yuy dajaloo la mboo loolu depuis quatorze siècle la ko l'islam waxoon kay laa yakuna duulatan bayna al agniyaa minkum alal ji séddale leen ko yonent bi alayhi salaam la ko borom bi wax mi ngi noonu jëlal alal ji séddale ko fuqaraa yi masakini ibnu sabil kay laa yakuna duulatan bayna al agniyaa minkum lii mbokk mooy indi jàmm bari na tey ay ndaw ñu bari ña ngay dem di agressé bari na ay xale yu jigéen yu bari ña ngay dem di njaaloo amuñu lay ci loolu waaye nag aka bari ci ñoom ñoo xam ne bu doon te ne gis nañ ñu leen di dimbali loolee ñuy def duñ ko def mukk mi ngi noonu buñ gisoon ñu leen di jàppale loolee ñuy def duñ ko def mukk loolu kon mbokk ñu góor góorlu jéem a ñaan yàlla bokk ci ñi nga xam ne dañuy génn zakat képp koo xam ne am nga njaboot képp koo xam ne am nga xarit nga la waay jëfe la ismaila doon jëfe suñu borom yàlla tagg na jaamam boobee di ismaila alayhi salaam nga xam ne moo nekkoon sabab ci tabaski gi ñu génn borom bi mu ne kaana yaamuru ahlahu bisalaati wa zaka wa kaana inda rabbihi mardiya ismaila da doon digal fu mu mën a toll njabootam na ñuy julli da leen doon digal ñu génn zakat naka noonu itamit amooloo génn zakat waaye xoolal njaboot gi xoolal xarit yi képp koo xam ne jàpp nga ne kii kat zakat war na ci moom bokk na la gën a màgg ci li ñuy diglente lu baax di terante lu ban mooy la nga xam ne nii moom mooy génn zakat ay yow mi nga xam ne yaa fas yéene génn zakat bégal yaa ngi defal sa bopp yaa ngi rafetal rafetal guy dellu ci yow suñu borom yàlla nee na hal jazaul ihsaani illa al ihsaan ndax dara nekkul payu kay def lu baax lu dul yàlla delloo ko lu baax loolee yal na yàlla barkeelal ñu suñuy borom alal yal na yàlla wërsëgal leen ñu génn zakaat ba ca yàlla santaane yal na yàlla sàmmal leen alal yooyu yal na yàlla def ca jàmm ak xéewal fuqaraa ya nga xam ne nii dañoo jëm ca ñoom yal na yàlla xettali leen ñoom it walbati seen mbir ba ñuy génn zakaat yal na yàlla dépp la ñu lépp luy jur ngërëmam àdduna ak alaaxira yal nañu yàlla may aafiya fi dunya wal aaxira allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين